nag waaw yëpp la toj waaw nag kon nag bokkul xarfu bu ñëwee ko xarfu mustalax la la ba mu ja waaye nag moo tax koo xamut mustalaxaatam doo mun a wax ak moom moo tax mu ne ko rek bul weddi xamul wa qaala cheikhul imaam wal qudwatul humaam cheikhu saydil muxtaar al kunti radiyallahu anhu kama fi tadyin moo ne wa qaala qutbu diini shiraazi radiyallahu anhu ne i'lam ñooñu ñëpp mu cité leen ne anna inkaar al awaami ala al xawaasi laa yaqdaxu fi manaasibi nee na ku du ku du nenn su linkaaree ko doon lu ne. linkaar ak kii du wàññi kële dara hmm? ku bokk ci awaam nit ñi xamagoo lu xew eh, nan bu ku lu xarfin gépp madd oh, madd wax ci luxa loolu lay firi mu ne su xaas kooku du ko wàññi dara hmm. hmm. kama laa yaqdaxu fi risalati al anbiyaai nisbatu baad annaasi lahum ila alsixri waljununi wa gayri dalik comme ni nga xamee ne bi yonent yàlla Muhammad ñëwee ak sax ña ko jiitu woon da nga kuñ oo ci lislaam ni mu leeree ni mu baaxee ngay tuumaal yonent bi ne dafa dof wala dafay njaber na nga xamee ne lañ ko tuumaal noonu wàññiwu ko dara te loolu mooy sayyidul awwalina wal axirina naka noonu itam ammi yu ku xamagul lu xew su ñëwee di contre ku nekk ca kaw ci yàlla du ko wàññi dara nag du tax waa jooje euh, ñàkk dara ca lam amoon qaala sahlu bnu abdillahi man ra'aytumuuhu yasdari bil awliyaa'i wa yunkiru mawaahib al asfiyaa'i faalamu annahu muxaaribu lillahi wa rasulihi sahlu moomu ku mag la dafa ne gaa ñi ku ngeen gis rek muy xeeb waliyu yàlla yi di weddi li leen yàlla may ñoom ñu sell ñooñu xamal ne rek benn waay bu xeex yàlla la jël bee ñëwagut sahlu moomu ma jox leen ci tuuti sawlu nee na sëriñ bi ko doon tarbiya daf ko jàngal ñaan goo xam ne daf koy dimbale ci muraqaba fuuglu yàlla allahu naadirun ilayya allahu qaadirun alayya allahu xaadirun ladayya allahu may mu di ko wax rek mu ne ko foo toll rek dee ko dee ko dawal rek yàlla ngi may gis yàlla ngi teew yàlla mën jaar rek toujours mu ne ba benn bés mu sujjoot yëg ne roxoom gi sujjóot na ma dañuy junj mu ne mën a xaaral ma may roxo gi yan yan bala maa jóg mu jóg mu ne mu toog lu yàgg yàgg yàgg roxo ne meng rek mu ne mu jóg daw seeti sëriñ ba ne ko ay ne sëriñ mu roxo moom bu sujjóotee kañ lay jóg mu ne ko sujjóot na mu ne ko dootu jóg mukk ba bés <laughs> Mhm. kooku mooy sahla mu ne koo gis rek muy xeeb di teg yàlla di weddi la ko yàlla may xamal ne rek yàlla la songoon jël ba pareegul rek wa umli lahum inna kaydi matin yàlla ko wax mu ne bàyyi dama leen di yan yan yan rek maa ngi leen di bàyyil ba ma xëcc rek wa qaala cheikhul imaamu wal qudbatul humaamu cheikh si ah, waxoon nag waxoon nag waxoon nag ah qaal wa qaala abu yazid rahimahullahu ida alifa alqalbu alicraada an illahi saxibatu alwaqiatu fi awliyaillah hmm. abu yazid bustaami nee na xol su miinee jox yàlla gannaaw maanaam su miinee saggan rek foog mu am lu ànd ak moom leneen mooy jëw nit yàlla yi di leen wax dara parce que vice versa ku fonk yàlla fonk nit yàlla yi hmm. abu yazid moomu moo ne luxumul awliyaa yi masmuumatun waliyu yi mu ne seen yàpp yi donc seen der yi dañ ko empoisonné luñ tooke la moytuñu ko wa aadatullahi fi mubridihim maaluma gis nga mas muuma maaluma même buy wax sax dëgg yi daf ci ràbbaale bu rafet mu ne te xam ngeen ne ni yàlla baaxoo euh, ni yàlla baaxoo ak euh, ku leen bañ ñoom wali yi ku ne xam na ko fa man atlaqa lisaanahu fihim bi salbi ibtalahu llahu qabla mawtihi bi mawti alqalbi salbi qalbi mu ne koo xam ne kii maanaam euh, yàlla daf la nattu maanaam koo xam ne da nga jooyal sa làmmeñ rek ci ñoom di leen ay ba rek sëlbu mu ne yàlla lim lay nattoo mooy euh, sa xol bala ngaa dee sa xol day dee falyaxdar alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim yàlla ngi doon waxee ne ne ñi nga xam ne ñi ngi mooy ndigalam nañ moytandiku fitna dal leen ak lu mën mel wala sax mbugal mu métti at attunu abu yasi mi ngi tudd tayfuur al bustaami maalam tijaan ahmad yi bu kanu sal bi baay boobu yéeme lool rahmatullah alayhi nee na ma dañu doon dem Màkka ànd ak bàyyi ci taw avion yooyu nga xam ne Dakota yooyu ñu am daal ay trou d'air yu métti xuy ba ñu bëri ngi besal seen gëm yàlla di xaar lañuy ñuy xaar bàyyi maalum tiyaani mu nett la leen Abu Yazid ak taalibeem ya ba seen géej gën a xare lii jaww la lale géej la c'est la même chose <laughs> euh. mu ne géej gi dafa naqari gaal gi jaayu ñuy tudd yàlla mu ne ah mbaa àgg ngeen foofu yee te ngeen oo ma man ma oo ko moom <laughs> sunna lay wax kat waaye boo jàngul sunna doo ko ah mu ne ñoom suñu appliqué ya ah, ba Yazid yàlla mi moom géej gi nga dalal ko man ñu maam jiyaan yi d'office ya Cheikh Ibrahim yàlla mi moom jaww ji dalal ko loolu ci année cinquante yi la maam Tijaan yi képp taani jamono la nee na ma bi may laata déglu mu muy firi alxuraan ndekete ñu li ndaan def kanu mooy nafat jalaat at mu at mu ne booba laa soppi méthode mais mu jigi géewam ba kenn xamul fu mu toll euh, entre Abu Yazid ñu turam bi rek Tayfoor koo ko rek yàlla yërëm Mm-hmm. Mm-hmm. waaw wa qaala cheikhu abou abdillahi alqurashi gis nga ñii ñëpp mi ngi mel rek ñun buñ nekkoon fii naan baay baay mbay noonu la leen gaa ñi xamee ci ruq boobu wa qaala cheikh abou abdillahi alqurashi man gadda an waliyin lillahi azza wa jalla duriba bi sahmin masmumin fi qalbihi wa lam yamut xatta tafsuda aqidatuhu la ilaha illa Qurashi moo ne man gadda an waliyin koo xam ne da nga mépriser ab waliyu te muy waliyu yàlla nee na yàlla daf lay fett benn fett bu am poison tip ci xolam ba te balaa dee rek pas-pasam yàqu wa qaala al-Ghazali rahimahullah man lam yakun lahu nasibun min ilmi al-qawmi yuxaafu alayhi suul xaatima ça c'est très sérieux nee na Ghazali moo yàlla yii sufiyanke yii ku dee te mosoo ca dara ragal naa sët muy du baax hmm. wa adna nasibin minhu at-tasdiqu bihi wa taslimu li ahlihi mu ne nag cër ba ci gën a jege mooy au moins nga dëggal gaa yi waccee leen seen mbir bul dugg ci di leen jéem a kii bal yajibu alayhi e da ah, taslim e ano wa qala aydan inna man qata'a al abdalu fi atrafi al ardi wastataru an a'yuni al jumhur li annahum la yutiquna nadara ila ulama'i al waqti li annahum indahum indahum jahiluna billah xam nga abdaal yi benn benn catégorie la ci nit yàlla yi al abdaal yonent dafa wax ci ñoom baata maanaam ku ca bokk bëdal nga tudd pluriel mooy daal lu tax ñu ne bëdal bëdal mooy mooy mooy mooy mooy daanu alternance lu uutu nangam ñu ne ñi ngi leen ko tuddee ngir ku dee ca taayifatu rek yàlla yégal kenn mu egg ma xamam remplacer ko ñu ne itam am na itam mën ngaa bëddal mën ngaa toog ak moom nii nii fekk bu rocceeku na dem feneen bàyyi fi jëmm ju ko wuutu mu dem dox doxi benn soxla ngir yàlla wala ngir mbindee fi lu mu ci mun di doon daal ay ay maanaam high class lañ. keroog maa ngi bëgg de maa ngi jàng benn fatwa bu ñu def. Mhm. alxabaru daal ala wujudil qutb. Mhm, mhm, saxal na ko bu wér. waaw bil ahadis saxiixa yooyu nag dégg léegi gars yi daal yooyu yooyu yooyu mel ni lu ñu sos tey te suyuuti yi moom pour nga xam suyuuti yi pour ñun ñun rajo bi laa ñees moo ko jàngal. mu ne ma Abdourahmane Suyuuti yi fi ma xamee ne mooy waaja mu ne ci aj ajam moom ak baay xam nga mooy aj ak baay ak ñaareel mu ne ma dañu dugg ci benn librairie benn maktaba buy jaay téere bàyyi na ko bépp téere bu fi suyootu am rek bu ndaw ak bu mag indil ma ko amul tànn mun xam nga ku bàyyi def noonu say téere mooy yow kéemtaan nga waaw indil ma yëpp yëpp waaye jóor yëpp bàyyi fay ko waxante sax aj googu yu bëri ci xew waaye bi lay dama am plume parker parker cinquante et un boobu presque daal ñi ko am bëriwuñ Burhan Sayfuddin mii di doon dalal ni ñi doomam nekk fa boobu amul doole noonu ñuy lekk ak bàyyi noonu ak kii Burhan di xool plume waaye bi bàyyi bàyyi na ko may ko ko ci olof waaye bi lay xaw a kii mën na ko ati ya <laughs> ci ara ay yow yow mu ne Brahima du ma lu ko nëbb waaye vraiment bëgg mu ko war a jox yàlla ñu ñu suuf yi moomul dara dara moomu ko waaw euh, Ghazali wax nag man ne bon ah, mu ne nag ab daal yi rek mu ne boo gisee ñu dispersé nekk ci dëkk yu mag yeeg nëbbu du dara lu may dafa am ci ulama yi ñoo xam ne mënatuñu leen a gis ndax tellement que dañoo dañoo sori waaw nekk alim ba pare réere yàlla moo tax te ñoom itam bugguñ leen wax daal ñu daw leen am na sax beneen théorie boo xam ne ci jamono yu yu yu demee nii am na ñu bëri ñu gëm ne nit yàlla yu bari dañuy dugg ci capital yi ne fi meng ndax buñ leen xàmme Hmm. waaw innama anqata al abdaalu fi atraafi al ardi wastataru was was wastataru an ayuni al jumhur jumhur la wax Samba Surabaar si ak mbooloo mi duñ leen gis le public mais ñi leen war a gis daañu leen gis li annahum laa yutiquuna an nadara ila ulamaai al waqti li annahum indahum jaahiluuna billah hmm? wa hum inda anfusihim ulama te pourtant li ñu rëy rëy rëy yàlla ñoom ñooñee ñoom jàpp nañ ne ñoom ñooy gaañi fa raaw al iraada an al jahilina min axlaaqi al muminina imtisal li qawlihi taala wa arid an al jahilina ab daal yi dañoo xam ne ba yàlla ne dëddul joxal gannaaw ñi xamul mbir yi ñi xamut mu ne ñu gis ne kon fexe ba du gis ulamaaw yooyu xamuñ dara ci yàlla ba pare foog ne ñoom la loolu topp yàlla ci la bokk wa dakara nawawi beneen si gilaag la mooy borom azkar mooy borom riyaadu saalihin ah nga xam ne foo gis bàyyi muy tukki azkar a ngi ci walisam azkar nawawi nga xam ne azkar la ci def ku bëgg dara foog nga bëggul lu ci bokk moom moo ne woon moom moo woyoon wooy wa mimma zaadani farxan wa tiihan wa kittu bi axmusi atou soraya duxuli taxta qawlika ya ibadi wa an sayarta ahmada li nabiya ku am yëg la mu ne li ma kontaan titre bay waaj a tiim bi diw ya mooy yow yàlla nu ma mudd mel bi ne yaa ibaadi yi rek pexe amul dugg naa ci biir oo nga ma <laughs> yaa ibaadi yi eh, sama jaam yi maa ngi ci biir moom ki nawaweeku in indi ko ci téeréem ba mu nii bi ne yaa ibaad yi rek moom man bokk naa ci te nag sama yonent nga def ko muy Ahmad alayhi salaatu wasalaam kenn ëpp ma tiitar ci àddina yooyu yëpp ay kii la Nawawi nag moomu moo ne yaxrumu ala kulli aaqilin an yusia dannahu bi awliyaa illahi taala ku am xel dëgg-dëgg xaraam na ci yow ngay ñaaw njort ci wàllu yàlla yi xam na bàyyi dafa ñu ko simplal moom ci wax ju ñëpp mën a dégg mu ne yonentu def ne alayhi salaatu salaam ñaari jikko benn maanaam dara gënu leen a rafet rafet njort ci yàlla ak rafet njort ci jaam yàlla mu ne ñaari jikko xaslataan yi dara mooy ñaaw njort ci yàlla ak ñaaw njort ci jaam nag boo gisee kuñ ne am na maqaama wala am na may nga dëggal ko defoo dara lu may rafet njort rek yàlla mi ko may ak moom mi may problème bi kay mooy mu ne mu do ko yow nga weddi ko ah, moo tax ñu ne ku dugal junne ñu ci bokkut garaawut ku ci génn kenn ku ci bokk loolu moo garaaw waaw yokku ci ne bu buñ ne yàlla may na diw nangam diw am na nangam nga taxaw ne loolu amut mu ne yaa ngi mel ni ku ne mbooleem registre yàlla bind li maye parcourir naa ko may googu nekku ci pour kooku loolu daf ciy jàngal rafet njort ci nit ñi yijbal tawiloo bidanga Nawawi nee na yaxrum ala kulli aqilin an yusia dannahu bi awliya illahi taala bal yajibu alayhi tawilu aqwalihim wa afaalihim ma lam yalxaq bihim wa yashrab min masharibihim li gën mu ne Nawawi lu ñu wax laal jéem ko firi firi bu rafet luñ def nga dégg ko dégg bu rafet feeg nag demoo ba bokk ci ñoom naan kaas biñ naan mos liñ mos ba xam lan la cheikh badruddin zarkashi nee na laa tasma fatwa shaxsin fi lqawmi ila baada taxqiqihi li istilahatihim wa maarifatihi li xaqaayiqi alfaazihim bul dégg benn aalim buy def fatwa contre nit ak yàlla lu mooy fekk moom moo may fatwa naan baax naag baaxul daga naag daga bi da na dem ba scruté gars yi liñ ne ba xam seen concept yi lan la maanaam daal foog ñu xam li ñuy wax di wax lu mu xamul uh-huh. eh, kama la tasmau fatwa al usuliyi wa naxwiyi fi lfiqhi li adami ixaatatihi wa itqaanihi dalika mu ne mi ngi mel ni tey maanaam nit ku jàng uh, usul te jàngul naxu wala ku jàng naxwut si jàngul fiq muy wax ci lim jàngut mu ne respecté ko mais nag lim xamul bu ciy wax moom bu ko ci bu ko bu ko déglu hmm. id ilmu naxwi wal usul innama huwa alatun li taxqiqi lfiqhi la annahuma aynuhu ki jàng usul ak naxwu daf bëggoon a am jumtuwaayu tax mun a jàng fiq kon nag jàng gum rek nax euh, naxwu ak usul taxawul ngay faqiwu su waa ji waxee ci fiq bu ko weddeegum fekk jàng goo fiq nag yow daga ngaa utoon oto pour dugg ci dem Brescia waaw léegi am nga oto bi dem ko Brescia nga bëgg wax mbedd yi niñ mel xam nga du sotti mhm. fa in faala faqad dalla wa adalla ku ko ci def daal réer nga yow ci sa bopp réeral nga itam keneen wa kadalika man la maarifata lahu bi istilaahi alqawmi fa innahu ida samia qawlahum min gayri taxqiqi li maqasidihim wa maarifati faxwa isharatihim ittahamahum mu ne exactement koo xam ne nit yàlla yi dañuy wax seeni waxin yow xamoo ko duggoo ca mbir ma dafoo ca benn recherche bokkoo ca euh, dañ leen di tuumaal li annahu ida samia qawlahum xaqiqatu tawbati hiya tawbatu min at tawbati fa innahu yunkiru dalik mi ngi mel ni tey ku dégg ab sufiyanke naan dëgg-dëggi tuub mooy nga tuub tuub mu ne boo xamul seen mustalaa yi da ngay wax jooju da nga da nga koy contre a tawbatu mi ne tawbati taw yow bi nga defee lu bon wala nga wax ko nga yéene ko bi nga tubee mooy da ngaa balloo la mu ne boo ne a tawbatu mi ne tawbati ndax mooy bàyyi tuub mu ne déedéet loolu ñoom xam nañ liñ ci jublu boo ko xamul nag bu leen weddi boole ko benn xale bu ndaw anam bu mel ni bu koy maamee ñëw na ko ma ma ma maa woo xaqiqatu zikr. ñooy di di sarxa ba pare xale bi na ko xamoo dara xaqiqatu zikr woo tarku zikr. gone gu ndaw. waaw rek dem bàyyi ko fa mu ne waaye dox na ba xam ne. li xale bi waxoon ma dëgg. zikrul ko yebaloon kon nag mu ne bu déggee ñu ne dëgg dëgg tuub mooy tuub tuub daf koy weddi ndax xamut ñoom seeni concept mu ne fa ida arafa anna muraadahum bi dalika ittihaamu anfusihim fi ixlaasi tawbati wa ru'yatiha raja an inkaari mu ne bu demee nag ba xam ne gars bi ñu waxee tuub ci tuub ñi ngi ci jublu rek ne liñ ci jublu mooy ki tuub dafa sellal ba tuumaal boppam ndax sellal na tuub gi ak lim dem sa ba gis tuub gi ba di ko sinkalikoo loolu bu xamee ne loolu na ci jublu rek kon dootu ko wéy mu nit dara boo ci boo koy tiituroo da nga koy yëg fa ida arafa ana muraadahu bi daalika ci moom fi seen fi xalaas tawbati wa ruyati ba wa aadamu min dalika qawluhum arabbu abdun wala abdu rabbun mu ne lu gën a garaaw nag mooy nga dem ba fekk ci ñoom ku naan borom bi jaam la jaam bi borom la fa ida samia hada man laa dawqa lahu ku amul benn guu bu mu def ci mbiru gaañi dégg loolu amara bi qatli qaaidihi wa dabxihi bu dee buur léegi def naan ki wax wax ji rey leen ko وإذا عرفوا مرادهم بذلك أن العبد إذا بذل نفسه لمولاه وفني في مرضاته وغاب بشهوده عن شهود نفسه ملك ملكه ملكا كبيرا وجعل الأمر بيده mu ne nag bu fekkee ne nag xam na gaay ñoom liñ ci jublu jaam du doon borom bi borom du doon jaam bi waaye ñoom liñ ci jublu mooy su fekkee ne jaam bi jox na boppam boromam jeex takk ci ngërmaandey boromam ak yim gërëm yépp faddu wali seedu seedu gam seedu boromam tax gisatul boppam yàlla daf koy fal jox ko nguur gu mag a mag a mag mel ni moo amee fii xataa ida annahu ida qaala li shay kun kaana ku ca nit dana dem ci moom ba nga xam ne soo ne dara nekkal loolee nekk te yow ab jaam nga parce que da ngaa fàtte sa bopp jeex ci sa borom sa borom mën loola loolu loolu rek lañ ci jublu maanaam jaam dana dem ba yàlla mën loo ko lu mu daan def te jaam du ko mën loolu rek la ci jublu kama qaala cheikhuna aljiili radiyallahu anhu wa amri bi amrillahi in qultu kun yakun wa kullun bi amrillahi fahkum bi qudrati comme na ko suñ sëriñ jiili waxee moom ki di kiy nettali ne jiili nee na suma mbir ci mbiru yàlla la mujj aju su ma ne dara nekkal rek mu nekk waaye nag loolu yëpp ci ndigalu yàlla la kon nag waxal ne quand am na kattan xam nga kun in xultu kun yekun xam nga xam nga bàyyi wax na ko kon lii wan la ne moom moo ko njëkk a wax bàyyi même ci tasawuf amul bidaa fi gars yi jaaroon la jaar fañ eggoon mu egg fa yàlla may ko lu mu ko may waaw mu ne qad xassani bil ilmi wa tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi yàlla may na ma xam-xam ba ndax daf ci def article tasrif mooy mun a soppandiku ba su ma ne dara nekkal mu nekk te sax ci saasi la koy doon te suivre mooy na saw fa mu ne nag foofu la nit ñi yem waaye nag fii ci bàyyi rek ñu bëri dañ ko jàng mm-hmm. dafa ne lakinnani taxistuhu wakila taadduban waxtaarani xalila man loo na ma ko waaye nag def naa yàlla muy sama wakil rek ngir rek teggin sama diggante moom moo naan nekkal man du ma ko wax mu ne yàlla nag daf ma xarit wa taxadallahu ibrahima xalilan commencé wul tey <laughs> xam nga ci dawaayir yépp xaqiqa boobu am na ci tëjalli ku ne la nga yëlif mën nga ca ne nekkal mu nekk dëgg la dëgg hmm? oto bu gaare dafa gaare yaa ko ne gaareel mu gaare oto bu démarré ak nekk la mais ci aalamu démarré yaa ko démarré hmm? buñ demee nag ba kii yëngal yëpp mu nox ko mu paanal oto ba ci digg ba doo ci mun dara waaye ba tey itam Ibnu Atayla nee na daf lay jafeelal nga fàttali ko ba mu la yombalalee ngeen nga ñëwaat ci moom doo hmm? hmm? rek la ji hmm? mu ne wa kaana imaamu alxaramayni radiallahu anhu yaqul law qiila lana fassiluu lana maa yaqtadi takfira wa yuaddi ila tadlili min ibarati alqawmi la qulna hada tamaun fii xayri matmain yaay dégg nañ mbir mi imaamul xaramay ne juway nii kooku sëriñu imaam Xasaali la waa ji doon traduire téere baay ba mu nu joomul hudaa ca Paris xam naa ne boo demee ab ab étudiant la waa ji neexal rek bu di ko piri tam dëkk Sénégal ndax ba bàyyi di nettali imaamul xaramay ni moom il a traduit le prophète de l'islam a dit te bàyyi dafa xam ne imaamul haramayni aadi comme Sénégal yow imaamul haramayni ñool Màkka mu foog ne moom la ñuy wax te imaamul haramayni juway nii sëriñu imaamul Ghazali ba waa ji ñëwee ne ko euh, lu tax yonent yàlla lu tax yonent yàlla Muhammad ne buleen ma gënal ci kaw Yunus ibnu Matta te ku ne xam ne ne moo ko gën